Olympique ah, le candidat de la jeunesse. ñu commencé programme bi s'il vous plaît na ñëpp toog ñu commencé programme maire notre frère Sayer Mangane Thiès Est Lamine Diallo Thiès Nord du président Siré C'est lui qui a gagné aujourd'hui la confiance du président Macky Sall la confiance du président Idrissa Seck doomu Thiès l'incontournable le fatigable

Adja Ndeye Niang wax na ko léegi ñun waa IMSEC dañu ñëw ànd ak le ministre Yankhoba Diattara pour yéen jigéenu Thiès ñu génne 100 millions jox ko tey monsieur ministre li ma ci neex mooy dañ la fekk ci yoon wi témoignage yi ñu dégg léegi dal na suñu xel yàgg nga jàppale ay jigéen. yàgg nga jàppale jigéenu Thiès ñun waa IMSEC dañuy ñëw fekk la ci yoon wi pour gunge la ci loolu fi nga jëm xam nga ko am na sunu yaay ju wax léegi lalal sa basang wax na dëgg lalal sa basang ñun IMSEC pare nañu pour accompagner la ci stratégie yi nga def pour jàppale jigéen tey dinañ joxe 100 millions pour jigéen ñi ginnaaw suba ñu joxe 200 boo faloo ñu joxe 500 yi baax na lu baax a ngi nii kii ku baax la jàpp nañ ñun la ci sa politique pour jàppale jigéen ñi pour jàppale ndaw ñi pare nañu ñun waa IMSEC wax naa la ko sa bureau Dakar ànd naa Camara ak Ndeye wax la ko loolu la ñu fas yéene def ndax danaka dafa wo jigen ni financement jigen ni amul ak muñ dul joxe minimum juróomi milliard dugal ko ci jigenu Sénégal lolu biñu biñu préparer bi ñuy sunu vingt ans barki dem grand théâtre dajale nañu jigenu Sénégal yëpp wone li ñu liggéey monsieur le ministre kuy def deureum budul dara bu falo lu muy def kii pare na pour jàppale leen pare nañu ñun pour jàppale ko mu jàppale leen monsieur le mi li am solo mooy ñun dinañ financer jigéen ñi waaye tey dinañ jël engagement engagement solennel dinañ leen former danañ leen accompagner ndax financement rek doyul toogaay bi mi ngi yàgg te jigéen ñii nag ñoo yore dëkk bi mënoo ne da ngay defar plan Sénégal émergent da ngay def PAP 2 ah, jigéen ñi boo ko defee jàppoo ci dara jigéen ñi ak ndaw ñi ñooy ëllëgu dëkk bi ñoo yore kër yi ku jàppale jigéen ñi jàppale nga kër yi góor ñi mënatuñu dara attanatuñu dara jigéen ñee ko yore monsieur le yoon wi nga jël waaye gën ma ñaan ne ma monsieur ministre man maay ñëw sa bureau ñu waxtaan nga wax ma loo bëgg noo ko bëggee ma defal la ko noonu kooku nag mooy Ousmane Thiongar directeur yàlla dogal na bi ñuy commencé dama ne ko woon dama bëgg mobiliser financement wu cent millions ñu waxtaan ci ba tëgg ma ñëw Thiès waxtaan ak ñi nga xam ni samay jigéen lañu samay xarit lañu ma xam également ñu ngi yë yëngu ci mbiru financement ak mbiru développement bi ma leen ko waxee ñu kontaan ci lool ma ne leen nag am nañu ko fi wax sànq yàgg naa jàppale jigéen ñi mais bii li ci bees mooy bii financement bi man maay joxe caution man maa leen di fay intérêt da ngeen fay dara du ngeen jërëjëf comme ni ma ko waxee ci cent millions yi man maa leen di jëlal li nga xam ni moom ngeen di ubbee compte yi maa leen di jëlal en charge caution yi maa ngi leen di jëlal en charge intérêt yi te presque man li may coûté cent millions bu nekk sept millions sept million sept million yàlla suturaal na ma ci mbaaxu président de la république ak président Idrissa Seck am naa ko te yéene naa leen ko jox naa leen yàlla ci mbaaxam ci mbaaxu suñu boroom ci sutura yàlla dañ ko sant ñun ñëpp ñu war ci sant suñu boroom bi ma ñëwee annoncé cent millions yi c'est am na ñu mu diitaloon ba ñuy wax naan ay financement extérieur ak ay ñun fenn wutuñu benn financement extérieur ñiy financé jigéen ñi développement de Sénégal Thiès lañ nekk Sénégal lañ nekk te ñu ngi jàppale jigéen ñi te wutuwuñ ko feneen te tey dégg bi ma waxtaanee ak ñoom dañ ne ma mën nañ dem ba deux wante tey directeur ñëw na annoncé cinq cent millions de francs CFA pour les femmes de Thiès Qui ci nga réunion ce pays, mon engagement pour 500 millions monsieur le directeur général nous avons le ba au soir du 23 janvier 2022 ci parles de boroom ak confiance à Thiès ñu jël mairie de la ville de Thiès dama bëgg ñu le programme 1 milliard pour les femmes de jeunes. Nous lançons 1 milliard chaque année ci budget mairie bi dina ci jël 100 millions bonifié ko ak wa DR ak wa ñu 1 milliard pour les femmes de chef nga xam ni benn femme doogu ñak loolu ngay jàppee ñu xam ni président Abdou Mbow wax na ko sànq tey ci retrouvailles yi président Idrissa Seck ak président Macky Sall pour liggéey Sénégal waa Thiès dañ cee war a gis seen bopp bu baax a baax a baax a baax te ci loolu jàpp naa ni mën nañ ko tàmbali ak jigéen ñi mais également les jeunes xale yi xale yu góor yi xam leen ni du ma leen pour lancer le programme pour les jeunes Maintenant organisé organiser du er janvier au 8 une foire du numérique à Thiès pour les jeunes dans le domaine du numérique j'en profiterai pour lancer le financement des jeunes la dans le cadre du programme